maling yang isenti gente milen doh lenam lenam menang kok lenam beban soren ya kita sakui semua sifle dengan bayi sifle bedal moren di pole moren di takale hai maling ini afir tirki ya kamu ini mau mulai lebih bukayar dan kasut tiga lagi nyarion tidak saya kapal ngip Arbi di barengan, serinjang kayak kaper. arbitre sifflé na Serigne Ndiaye tàcc ngi leewtoo tey dimanche 22 décembre 2019 Dieye fi woo lamb ji dox ci diggante Serigne Ndiaye numéro 2 ak Libidor bu Kayar Libidor moo nekkoon Grand Yoff mbooloo léegi mi ngi Kayar ñaari mbër yaa di leewtoo Serigne Ndiaye numéro 2 seen Libidor bu kayar sen dayor ñu ngi lewtoo di xolante ñoom ñaar Serigne Ndiaye ma dafa bëgg dem sa ñu lewtoo mu si Libidor def retraite d'accord delloo ko ci bir geew gi ay way ji lamb ne naa la làmb ju du mëna yomb de ndaxte ñoom ñaar ñep ay mëru mbapat lañ ya gënal tassé ci mbapat yi Adrien terrain galgi gi ak ci village yi Serigne Ndiaye cokkaas na léegi Libidor déplacé Serigne Ndiaye maa du lu mu jàngale bëgg tari combat bi tubaab boobu ñuy wax ayus moo ko doon préparé ko de boxe tey ji lamb tey du yomb diggante Fass la Kayar ñu ngi leewtoo ñoom ñaar sal na léegi oh Serigne Ndiaye gi noonu mi ngi lay teg moom tey ñu xam bu dañoo bari Gris Bordeaux Tapha Gueye 2 Forza 1 Forza ngi xeex tase nañ Libidor tey jam teere kay indi ñu ngi lay taw ngi xeex ñu ngi doorante door na ko mu daanu door na ko mu daanu laay laay la laal da ngaa door muy tartari mu pof ci kawam Serigne Ndiaye numéro 2 mi nee naa leen lu mu jàngalee tari xeex ba fayul na bam doy ayus ayus moo ko entraîné xeex bi dafa dóor mu daanu waaju di tartari mu yeggali ko ay Talla Ndiaye xale bi na ngeen ko bàyyi xel Talla ayus a ngi ne ayus ayus viens ici eh ayus viens ici comment t'as comment tu l'as préparé Eh, comment tu l'as ah. préparé Alors Aïs, tu me l'avais dit, comment tu l'as préparé ah, on l'a bien préparé. Hein il, a fait, exactement ce qu'il fallait, il a mis le pied à l'extérieur. Et il a travaillé son bras avant, il a sorti la droite, il l'a touché, il l'a fini en lutte. Il a été concentré, on a bien travaillé grâce à Joseph Diouf, Tafagay, à et Abdou On a fait un travail d'équipe. Il, a donné un petit crochet droit. Oui, on avait travaillé le crochet droit. Oui, avec le direct, mais c'est un travail d'équipe. Donc Joseph Diouf,

jóge fa dem Kayar ci ñoom cam teer yi Serigne Ndiaye ñëw ak ñëw boo xam ne nii ñëw bu ñëw bu doy waar la ar bi dafa sifle rek mu dox ci kawam fermé angle bi ayus newoon na ma crochet droit bi dañ kaa liggéey le pied à l'extérieur petit crochet dangaa waaji tartari muy waaja daanu saa mboof ko mu daanu Serigne Ndiaye na ngeen ko bàyyi xel et libi door du courage parce que lamb du fen Serigne Ndiaye dafa liggéey dafa liggéey dafa daan lii nag mooy lamb ne Grand Théâtre point TV lu gën a authentique si lamb lañ jox rawatina ci actualité waxatuma ak information yi ba du 100 pour cent découverte lay doon à la découverte de tout ce qui est information de tout ce qui est actualité Serigne Ndiaye numéro xel waaye sama waa ji maa ngi koy Mar borom Dubaay ak xam ne nii moom mooy Mansour Kane waa Rafs yëpp bëgg naa jëf gars